defe naa ni grève bi tey la si deux jours xaw ma dégg nañu nag adversaire yi wala état bi di wax ni grève bi réussir loolu ku ko wax rek réew mi ñoro la muy muy civil muy état sama déclaration nag tey lenn la wala fi am na lu ñuy wax naan san bo saan boo xam ni boo jamul dootoo jam foofu la ñu toll ñu jàkkaarloo nag ak état boo xamante ni bii am na fort boo xamante ni bii si ni muy éliminer syndicaliste mooy moom mu ngi tëdd ci lalam bu nooy népp climatiseur bu tàngee bu bu seddee sofaas di lekk di naan yoonam nekkatul si ñi ci des parce que bu ñu demee ba naan ñoom bàyyi leen leen bu ñu sonnee dinañu daw kooku ku ko wax ku nekk te jiite réew nit ñi ñoruñu ñoruñu la léegi nag ñu ñuy waxal mooy lan mooy suñu camarades yi nga xam ni ñoom ñoo ñu dooleel ñun syndicalistes yi téye woto yi région ak département ñu leen di wax ne nag ñu leen di ñaan yéen yéen ñu ñaaxoon yéen ñu bu leen dem mukk di waxtaani waxtaan wu ñàkk fulla nu daw nu dawloo nu te amuñu ay résultat ñun loolu lañ doon tiit waaye ñooñu nga xam te ni ñoom lañu doon tiit ñun ñooñu ñooñu may fi ñoom ñoo ni Mansour fay taxawal na leen trois mois kon ñun war na noo mën a taxaw 1 mois man sor fay nag ku dégg li mu wax ubbi naa samay bunt la wax xam nga ko ubbi say bunt da ngay xaar kuy ñëw mu wax ni moom négocié wul moom Mansour fay waaw loolu nag bu ab grève amee bu mel nii nga wax loolu lan lañ la war a jàpp. loolu nak luñu Kamal bëgg xamal sénégalais yi kenn ku nekk su fekkonté ni dekorasi, sax da nga demoon bay découragé war nga jëlat courage bo xamanté ni bi bu doon 1 mois la war nañu ko mëna taxaw ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm nak ci taxaway bi ngeen taxaw ta taxaway bobu taxaway jaamu yalla la waye ma ngi leen di ñaan li nga xamanté ni bi moy la état bi jël décision ñun nan buñ ci jëlé ben nan ci jël fukk lolou rek la doon wax ni leen camarade yi garé leen fi ngeen garé won su ngeen sàgganee ba daw te amuñu benn résultat mooy kuy dund si transport baye moo ko bàyyi parce que décision ba mu lañ jël loolu laa doon wax du gudd waaye maa ngi remercier képp koo xam ne da ngay dund si oto damay dégg sax ñu wax naan grève bi réussirul Dakar bi ñu nekk nag Dakar capital la mais Dakar benn région la si Sénégal waa grève bi nag moom comme ni mu ko waxee du grève bi day continuer ñun dañuy continuer Alassane Ndoye mii ngeen di wax ak ñi mu àndal fii ñuy waxee si synthèse Madia Diop fii laay fanaan ak léegi dem sama kër parce que bu mettez dama ko war a ànd ak yéen bu da ngeen ko war a ak man kon nañu maintenir grève bi ba keraa nga xamante ni bi état bi c'est hier qu'on avait pris la décision de convoquer la presse aujourd'hui pour faire le point entre-temps dans la nuit tard que le ministre à travers moi a convoqué une réunion d'aujourd'hui comme la presse, la presse elle est présente il faut qu'on les informe que nous, y nous sommes informés nous sommes convoqués à une réunion 11h. Mais après concertation entre responsables, nous avons dit oui, nous sommes d'accord pour répondre. Mais comme il y a des, il y a des responsables absents, que l'autorité puisse décaler un peu pour qu'on puisse se concerter pour ne pas créer des erreurs et répondre l'autorité à la table de négociation. C'est à partir, à partir de la table de négociation qu'on va réunir la presse pour donner le dernier mot. Mais on ne peut pas s'avancer. Pour dire quoi qu'il en soit, on attend la réaction. À la sortie de la, de la négociation, on pourrait dire la suite. Mais pour l'instant, c'était le but. Hier, c'était convoquer la presse pour pouvoir parler avec l'opinion. Que la grève, elle est toujours maintenue. Je vous dis que c'est entre-temps que le gouvernement a appelé par le biais du ministère des Transports. Donc tout de suite, je suis mandaté pour lui demander un report, entre-temps que les responsables soient présents, qu'on discute pour répondre. C'est ça ce qui nous a amenés ici. Mais malheureusement, euh, l'idée, c'était pas, on n'attendait pas la, convocation du ministre. C'est pourquoi on a dit à la presse, il faut venir, pour qu'on donne le point de vue, notre point de vue. C'est entre-temps que les données ont changé. C'est ça.